acca jërë ngeen jëf uh, yéen suñu mbokk internet bu deux cent vingt mais pipon ñu ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di dellowaat ku nekk uh, sa wàccuwaay amaat li di kontaan ak mbégte bu baax a baax nag comme ni ma ko faral di def ak kilifa yëpp jàkkaarloog beneen kilifa di kàngam nga xam ne jëmm ji ngeen di gis kenn du ko présenté te ndax doon na ko ràññeeku ci biir réew mi bitim réew àdduna wërngal këpp ñoo ko safoo rawatina lii di sud bi. li may dalal tey moo di Cheikh Ablaye Cissé tey nag ñu fas yéene waxtaan ci xam-xam waaye xeex xew jamono dinañ ci ñëw yaatal ci bu baax a baax waaye kan bi dinaa ci dellusiwaat laa tamit dugg sama biir programme Cheikh Ablaye ma bàyyi la nga nuyoo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 nga xamante ne ni moom la yàlla wax ci alquran ne ko wa innaka la ala xuliqin azim tàggee ko jukko ju màgg mm-hmm. moom nga xamante ne ni suñu royuwaay si moom la moom la bu séeréer ju tagg naan ko yow yaay sang ñaari kaw ni yi muy sang asamaan ak sang suuf mm-hmm. moom mooy ku nga xamante ne ni moom mooy borom leer gi belli ba yàlla di ko tuddee si taaram bi suratu yaasin moom mooy ku nga xamante ne ni moom moo tax ñu ñëpp ñu bind parce que yàlla wax na ko aadama na ko lawlaahu bu duutoon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du ma la bind du ma bind asamaan du ma bind suuf si leeram gi la ñu amalee ñun ñëpp si amam gi la ñu amalee ñun ñëpp kon kooku nga xamante ne ni moom moo tax ñuy lekk moo tax asamaan si di taw moo tax suuf si di sax moo tax pétrole di génn si suuf si moo tax moo tax moo tax ba buñ ko doon lim tey du jeex ñu julli si moom di yeesal suñu doon lépp rek si moom wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. maam Cheikh jërëjëf jërëjëf Cheikh Abdoulaye Cissé ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane ginnaaw sene set yoo tànd ak dal ñu ciy kontaan bu baax a baax aja jëmm ji nag nee naa leen kenn du ko présenté tey borom tengand bi moom xam ngeen ko ndaanaan la ci biir ndaanaan yi ndax euh, fan yu néew ci ginnaaw rek am na lu si waxtaanoon ba yaatal ci bu baax a baax ñu bëri di ci rafetlu ñu bëri gis ko ba di koy partagé ku nekk kan bi loo xam ne yaataloon na ci wax na ci waaye dañ jël siwaat di naan alhamdulilah mu ndam li nga xam ne suñu borom may nañu ko ba ba léegi mën naa ne ñu ngi koy feetu foofu laay tàmbalee laaj ko mu sànni ci kàddoom ndax du ñàkk loo xam ne dina ko ci yaatal bu baax a baax ñu dellusiwaat ci waaw foofu comme ba jeexee ba léegi waxuñ ci. mënuñ see ñàkk wax waaye bu ñu sañoon sax duñ ci duñ ci jaar. parce que ñun Sénégal dañoo tàmm benn mbir li am am na ba pare wax dëgg yàlla ñu demoon jongante ji yàlla may na leen ndam ba njëkk. ñoom ñëpp dellu nañ ci seen club bi nekkaat seen activité. waaye ñun rek ñoo ñoo ci nekk parce que amuñ xëy amuñ gont nekkuñ ci dara lu am farat. Uhuh. ñu naan dañuy génte waat ak loolu yëpp ñu fi caaxaan la. gañe nañ football jeex na jeex na nañ xaaraat séntuwaat leneen mu ngi ñu kanam di ñëw mhm. donte nag yàgg na amuñ ko ut nañ ko ba sonn mhm. tey la ko yàlla soo ko dogal waaye tamit nit da am activité booy def bañu teg si benn affaire rek nekk si mhm. ah ñu ngi leen si remercier parce que yaakaar naa def boobu léegi génnaatuñ si parce que coono yu bëri après lañ si jëlee doon duggoon si mbiram noppalu daanaka moo tax boobu léegi mënuñu woon génnaat pour jàkkaarloog askan bi ah. dafa am lu yàlla day maye te yàlla moom mooy maye. Ah. Euh, maa ngi ci remercier képp ku nga xamante ne nii rek duggoon nga si biir maanaam bokkoon nga moo xam mi dirigeant moo xam mi joueur moo xam ku munta mënta doon. Mhm. dafa am benn image boo xam ne Sadio Mané daf ko def deux mille dix neuf. Mhm. ba ñu demee perte kan bi. ba ñu mhm. ñëwee joueur yëpp dañ doon jooy ñii di jooy ñii def nu nekk. moom benn benn geste rek la def dafa ñëw ba si coupe bi teg si loxoom fóon ko dem image boobu nag. man depuis ba mu ko defee ba léegi. ba ba mu ni muy jëlaatee Coupe d'Afrique. loolu mooy dox sama xel bi ma wan ne kii kon. amaan na lu yàlla am na lu yàlla def si moom. kon si mhm. moom la yàlla dogale woon na si la ñu war a jëlee coupe d'Afrique. Mhm. ñu ngi leen koy sant di leen ko gërëm. Mhm. ñun ñëpp wax dëgg yàlla. lu ma si wax tamit mooy dégg naa si ay polémique yu bari. lu ma si wax mooy. football yoon tariixa nekku si. Ah, mag ñi dañ doon am sax gàcce di ñaan si football bëgguñ ko woon bëgguñ ko woon. xëy nañ ñun tey jamono ñun ñoo tolloog jamono bokk ak ñoom génération. Mhm. ba ñoom ñu am fit sax ñëw di ñu ko ñaanlu ñun tamit ñu si ñaan. waaye football dafa xaraam. loolu moom dèjà ñëpp borom xam-xam yu xam nañ ko. Mhm. dafa benn mu xadam Cheikh Mat Tidiane bu mag. ay nit dañoo mës ñëw si moom di ko ñaanloo si wàllu football. Mhm. xam nga paay rek yitte yu ñu amoon ak dogu yu ñu amoon moom mu jàpp ne aajo bi ñii di ko ñaanloo si moom. lenn rek mooy solution bi mu dem dugg xalwa toog di ñaan. mu dem mu jaral ko mu dem tëju. waaye ba mu génnee xam nga lan la wax dana Seexu Tijaan xawma lu mu bëgg waaye football bokk si Seexu Tijaan yoonam nekkul si football Serigne tuubaa yoonam nekkul si football mhm. maam Alaaji Malick Seex ma Fuutiyu Taal ñoom ñëpp seen yoon nekkul si football lii mbiram àdduna la mhm. nañ ko yemale si àdduna mu jeex jeex na mhm. buñ si dugal affaire tarixa waaw nañ ko si yem foola yàlla may nañ si ndam alhamdulilahi rabbil alamin nañ ko ko sante te seeti leneen mais YouTube boo duggee tey dañuy ngénte Coupe d'Afrique bi dañuy def lii dañuy def lii dañuy def lii boo xoolee ñun Sénégal depuis 2010 ba léegi. Mhm. amuñ dara lu ñu avancé lu dul caaxaan caaxaan dong dong dong dong si lañ avancé. Mhm. xoolal lu ma lay wax rek. youtubeur tiktokeur. Mhm. facebookeur. kenn xamul. léegi dong dong dong moo fi ne. si caaxaan dong la ñu avancé. avancé wuñ ci liggéey. avancé wuñ si ay diplôme avancé wu suñu xale yaa ngi nii. njàng mi <laughs> soo xee na. waaw ah suñ militaire yaa ngi nii. waaw barki Demba Ndiaye lañ rey si ñoom. Mhm. am ñu ci jàpp en otage depuis bañ leen jàppee ba léegi nag chaque mhm. jour ñu ngi leen ñaana yàlla parce que man. loolu moo gën a doon sama yitte sax si mhm, loolu moo gën doon sama yitte parce que ñoom seen réew lañ demoon xeexali dañ fay bàyyi njaboot yu sew seen njaboot fu mu nekk ni xamuñ sax ñu ñun si lañ leen nekk xamuñ sax ñoom si lan lañ nekk. Mhm. parce que ñu ngi si ay loxo yoo xamante ne ni. Mhm. lu nekk mun na see xew. yàlla yàlla sàmm seen ruuxu. sàmm seen jëmm. Mhm. ba ñu dell delluwaat dellusiwaat ci seen njaboot si jàmm ak salaam. bu leen puso wokk. bu leen bant xuri bu leen dara dara dara dal. ñu nga xam ne ñoo jiite gouvernement bi. ñu gouvernement bi ñu jiite. Ah. ñun maa ngi ñaanal yàlla président Macky Sall. yàlla ko yàlla booleeg ay liggéeykat. yàlla ko yàlla booleeg ay liggéeykat. Mm-hmm. parce que moom nekk na koo xamante ne nii. Mm-hmm. raw xaanam bi àttan na réew mi. Mm-hmm. waaye yàlla daf ko daf ko boole ay jegeñaale yoo xamante ne ni. Mhm. ñu si bëri daanaka boo xool danga naan ñii dimbale wuñ ko. Mhm. kon yàlla ko yàlla booleeg ay nit yoo xamante ne dañ koy dimbale si liggéey. Mhm. ak mbébét ak yéene bu rëy bu am si. si si si réew mi. foofu dogguma la fa dinaa bàyyi nga wéy ni ndax euh, gis nga nomination bu bees bi nga xam ne def na ko di Bamba Fall ku ne xam na Bamba Fall. mu ngi nekkoon ci gëm sa bopp di buggaan doon na mbetteel ci ñenn ñi mais xam naa comme niñ ko waxee ku ji langue politique yi xamante nañ seen biir mis conseil la ko def loolu lan nga ci wax sa njàngat lan lay doon. waaw xëy na gis na ko mu def jéego bu rëy si wàllu politique gañe mairie Médina bi gañe mu yaakaar ne bu ko jegee dina ko dimbali mu dem xëcc ko mu ñëw mu jege ko moom tamit na nañ ñu ngi koy ñaanal yàlla lu tax ñu woo ko bu ñëwee. na ko liggéey na ko def parce que fii amul pouvoir amul opposition ñëpp benn bëgg-bëgg lañu am. si lu ñu wax mooy dimbali Sénégal ngeen waaye nañ teg seen bëgg-bëgg yi teg seen intérêt bopp yi te dimbali réew mi loolu lañ soxla parce que bëgg nañ suñu réew boo tukkee heure bu ñu tukkee bu ñu ñëwaatee dañuy gën a xeemaat suñu réew. réew yëpp yëpp yëpp yëpp dañ ñoo raw te waruñu woon toll foofu waruñu woon toll foofu. ba pare beneen bi ñu ngi yàq suñu avenir u jeunes ñu ngi yàq suñu avenir jamono ji suñu boo xoolee suñu maam yi. Mhm. dañoo liggéey loon ngor jom fulla ak fayda ak dignité mhm. mais ñu ngi ko bëgg a commencé di ko yàq ndax lan alal gis nga boo demee si réewu naar da ngay mhm. fekk ab imaamu jàkk koo xam ne si imaam day nee na imaamatu la yor terewu ko mu ngi si caga ji terewu ko mu ngi si sàngara si terewu ko mu ngi si nàngam ak nàngam mais loolu suñ mag ñi ba ñëwee ñoom dañoo ne maanaam même mbiram diine sax ñoom dañ ko te may dañ nga seen dignité may leen ko ñuy def ñu samp fi ay daara. di jàngale ay alxuraan ñooñu di am ay dignité di am ngor. mais fu mu toll nii lépp mu ngi bëgg a yàqu ndax lan yëfi caaxaan. Mhm. nañu dimbalewaat suñu jeunesse bi nañu dimbalewaat suñu réew. Mhm. nañu amaat yeneen tànk. Mhm. waaw nañu amaat yeneen tànk. pour jëm si kanam. te bañ a yi ñu nekk. Euh, nomination bu bees bi ma la wax Bamba faal ñu bëri di koy xoolee gët yi nga xam ne sa Seck def na ko ba ñu bëri di ko doon waxee maanaam yëfu intérêt moo taxoon mu dem bët bañ doon xoolee Idrissa Seck ñenn ñi moom la ñu xoolee Bamba Fall. waaw ñu ngi koy lu ma wax rek jaruñu si dellu si waat nañ ko ñaanal yàlla lu tax ñu woo ko. Hmm. lu tax ñu woo ko moom. Hmm. na ko jëfee rek. lañ alaf ñaa day wax ne buñ lay sédd si gaalu xaj. Hmm. nañ fexe ba buñ la fekk nga siy lekk. wax na ko. jërëjëf jërëjëf euh, Cheikh Ablaye Cissé am na solo ci ponk yooyu nga xam ne ci lañ desoon di ci yaatal te damay dox wéyandeek yow fenn laay dugg mu di ci sa mëneen wala ni ma ko mën a waxee fi ñuy euh, di la ci laaj chaque jour nga ci àddu mu di seet foofu dinaa ci dil si ñu ñëw ci ni ngay seetee. waaw seet damay wax ne luñ ci fekk la am na ñuy wax istixaara am na ñuy wax seet. Mhm. te lépp boo xoolee daanaka benn la mooy gëstu si biddiwu nit ki gëstu si tabiam mhm. am na nag bëri na ay façon am na ñoo xam dañuy tëdd guddi jàng. Mhm. dafa naas benn waxtaan di wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. benn jour toog na euh, ñu yëg loo xamante ne ni bokkul ci yaramam fekk woo yahuutu màkke yi ñoom ñoo dem ci benn njabarkat. Mhm. ne ko gannaaw ba xam nañ ne ñun ñëpp yow la ci yàlla dimbale ci wàllu njabar dañoo bëggoon nga njabaral ñu yonent bi. bu ñu koy wax labida labida dem ne leen indil leen ma lenn lu bokk si moom ñu dem xool xam koo xamante ni surga la woon. Mm-hmm. da doon peñal yonent bi sallallahu alayhi wa ka kawaram. ñu ñaan ko kooku may leen si ñu yónniwaat ko tamit mu dem indi leen beneen pañe boo xam ne yonent bi moo koy pañalee boppam kon xam kooku ko jegee la woon. Mm-hmm. moo tax ma wax ne jamono jii. Mm-hmm. xarit amul mbokk amul donte alxuraan tudd na ko. munuñ ko dàq waaye mbokk mu baax amul. na kenn ku nekk na la sa bopp doy sëkk. na nga wóolu sa bopp. ba mu demee indil leen loolu. labit dem jël Mirke Mirke laa ko mën a tuddee. Mhm. desee na ko si si si bonam ak si si si mën a def lu ñaawam. Mhm. mu jël Mirke boobu tuddee ko yenent bi jël fukki fas-fas ak benn boole ko ak fukki puso ak benn puso bu nekk mu jàng lu mu siy jàng jam ko si benn cër si si si si njabar googu yóbbu ko dem def ko si teen def ko foofu. yenent bi njabar bi sonal na ko sonal na ko ba wax nañ ne. Mhm. ñu ngi wax si teggin ba dem nañ sax ba commencé mu commencé di naax. su bëggee def lii dem defi lële. waaye ba mu bëggee yàlla dimbali ko si njabar gi nan la def dafa dem tëdd ñaan yàlla def lu ñuy wax list listixaara mun nañ ko tuddee loolu ñaan yàlla pour yàlla wan ko lan moo ko dal mm-hmm. mu tëdd guddi ñaari malaaka ñëw kii toog si tànk yi kii toog si bopp bi ñoom ñaar ñiy waxtaan kii naan kii lu ko dal kii ne ko nàngam moo ko dal mi ne ko kuk ko def mi ne ko diw fu mu ko def mi ne ko nàngam mm-hmm. yenente bi yeew woo Seydina Aysa ne ko lu ma bëggoon a xam yàlla wan na ma ko mu woo alim alim ñu la Abu Taalib boole ko ak benn saxaaba mm-hmm. ñoom ñaar ñu dem dindi ji njabar góob ba ñuy ñëw fekk nañ ñaari saar di wàcc mi ma'uuzatayni falax ak naas moo tax lépp lu waay di muslu si wàllu cet wàllu làmmañ wàllu liggéey wàllu njabar mhm. loolu gën dara gënu ko see màgg am na lim bu ñu ciy liggéey lim bu màgg képp ko ko sangoo mhm. lépp luy xeetu njabar lépp luy xeetu musiba bu nekk si yow mhm. yàlla dina la ko tegg kon loolu listixaara la def yàlla wan ko loolu mu dem dindi njabar bi ñëw ba muy ñëw fekk saar bi di wax si falax juróomi juróomi laay la naas juróom benn laay boo ko boolee mii fukk laay ak benn bu mu jàng rek benn fas-fas dëñ benn puso rocceeku mu yëg tan si foofu sa yaram bi te yàlla wax nañ wax nañ ne ku mhm. doon yenant bi yàlla di seetaan njabar njabar gi di ko dal du loolu de te yàlla wax na si alxuraan bu yàgg ne wallaahu yaxsimuka minal naas mhm. waaye nag terewul seetaan nag njabar gi dal parce que yenant bi moom mooy nattuwaayu natt yi foog ñu nattoo ko si moom mu jaarale ko si moom ñu wan na kon benn jullit mënul mënul mucc si lii loo tax nit ku bu ñëwee mhm. pour jëflante ñu dañu la seetal seet nag am nañ si ñaari façon dinañ def li si xaar dinañ def seet xeetu seet yu bëri mën nañ ko parce que gëstu nañ ko jàng nañ ko mhm. du du la ñuy toog sax di ko wax comme nit ñi xamee nañ ñu ko rek mhm. ñu leeralal si côté boobu si wàllu seet jërëjëf mhm. waaye dama ñëw ci foo xam ne xam naa mooy tax sa génn du yomb euh, ndax euh, jot bi doo ko am mu di mbiru xalwata tam ñoo xam dañ koy bëgg rawatina ci koo xam ne ku ko mën ko wër ñu ñëw ci niñ ci jëflanteeg jaam yàlla waaw mbirum xalwata léegoo léeg nga dégg nit di ma woon ne wax ma ne ma diw ne daf ma waxoon daf may duggal xalwa wax ma situation yi mu ko teg ma xam ne kon duggalu ko xalwa daf ko doon nax xalwa maanaam baat la boo xamante ni boo koy turi baat bu xafif la lu oyof la mhm. ci tudd ko ci safatay ni maanaam si ñaari tuñ mhm. waaye lu diis la si jëf am na xalwa ñetti fan am na xalwa juróomi fan juróom-ñaari fan ba xay si maakonte ba lu ko neex si si nit ki ça dépend mhm. aajo bi nu mu toll xalwa boo koy dugg danga war a doon ko sell danga war a doon ko set ba pare waroo lekk liy dund mais léeg leen nga dégg dugg xalwa di laaj ay yàpp ginaar rek yàpp nag day caaxaan donc mhm. dafay caaxaan donc mhm. caaxaan bu sëriñ ci nekkee nañ ko bàyyi caaxaan bu sëriñ ci nekkee maanaam bukki yi nga xamante ne ñoo sàngoo deru bëy nañ ko nañ ci génn ba set si wecc te xam ne nekkuñ ci dëgg nekkuñ ci yoon may waxaat tamit beneen di yeeyaat doomu aadama yi mhm. mii mbiram euh, lu ñuy wax naan dañ leen tabdiral xaalis loolu amul wax naa ko waxati ko waxati ko bu yàggul gis naa si benn waay boo xamante ne ni. Mhm. këram si boppam. Ah. la ñàkk. xoolal rek. Mhm. këram si boppam. Mhm. la ñàkk ndax dañ ko woone ko dañ koy defaral xaalis. muy dem du joxe du joxe du joxe du joxe ba dem leb banque. <laughs> ay centaine de million ba leb ko banque. ñu xëy ñëw nangu këram. am na si keneen koo xam ne maa ngi déggante moom mi ngi France. moom tamit noonu lañ ko def. mu jël lépp lu mu amoon ba fu ma juumul weer bi ñu nekk nii. Hmm. bu ko yàlla dimbalu dañ koy génnee këram. musiba la ak lu ñuy wax bàgg masik. yooyu yëpp amul ñaan yàlla nag lu am la kenn du ko weddi. Hmm. bu la neexee nga dem ñu ñaanal la yàlla defal la listixaara ñaanal la dangal la xalwata. Hmm. defal la lépp may naan dama lay booleeg ay jinne ñu indi la xaalis. amul képp ku si nekk na ko bàyyi te xam ne amul. kon sëriñ si koy wax dañuy sóob rek. képp ku si nekk. na ko bàyyi nga xam ne sa alal la ñuy lekk ba nga mujjee torox. te dara duñ la ko jox. mais xel mënul nangu ne. nit ne la jox ma un million ma defal la ko dix millions. ci Sénégal gu métti gi konoon du ko defaral boppam. ah konoon du ko defaral boppam. Mhm. ñaan yàlla lu am la ku bëgg ñu ñaanal la yàlla seetal ku set ku sell ku la mënal ñaanal yàlla ñu ñaanal. beneen affaire bi manqué de noce gis nga sëriñ bu yàggul gis nga fi ay sëriñ yu ñu wane seen yaramu neen waaye bari nañ sëriñ yu bari seen yaramu neen mu ngi ci internet bi. Mhm. wala mu ngi ci téléphone jàmbur te ci kanam tuuti di nga lu ma lay wax dañ ci xam dara parce que dañu naan ay sëriñ lañ di ñaan yàlla. Mhm. yàlla may nañ as teraanga tuuti ñu yaakaar dañoo war a dem di ko caaxaanee. nañ bàyyi lu ñuy def te génn si yëpp caaxaan yi ñu nekk. Mhm. ñu bëri pees nañ leen ba amatuñ crédibilité amatuñ dignité parce que seen àdduna yàqu na. nañ génn si yëpp caaxaane yi ñu nekk. Mhm. lu waaye def sa bopp lu euh, nit ki rendi rek ci loxoom lay njëkka naa ci kon euh, dégg nga fa Cheikh Ablaye daaneele aja sànq dégg naa ngay wax ci ñaan euh, ñaan ci boppam li ne ci biir bëri na li dëxañoo ci biir yaatu na njëriñeek yooyu noonu ñu ñëw ci lan ak lan la ab Ablaye di ñaan waa si lépp mm, tënk rek ci mm-hmm. lépp mm-hmm. ba mu des nopp waaw ah, ba mu des nopp nopp ndax la parce que xamul nga lu tax seex mm. nopp nit ñi dañ ko oyofal trop te nekkul lu yomb ma laaj la yow nangu nga nit koo xamul si zaahir si baatin mu ñëw rek noob la jàpp la nga jël sa xol jox ko wala nga jël sa alal di ko ko jox est que yow sa bopp nooyee na noonu déedéet loolu ku nekk na ko xool sa bopp loo bëggul ñu def ko sa sœur bëggoon ñu def ko sa doom bëggoon ñu def ko sa rak mhm. bu ko def doomu jàmbur mhm. te nit ñi heure bu ñu xëyee ñu ngi def ay musluwaay di muslu seen bopp mhm. kon nit ñi jàpp leen si gàllaaj ci wàllu nopp yombatul kon képp ku toog si internet da nga nit ñi wala lu jëm si wàllu këyit da nga bëgg a nit ñi kese waaye jubluwoo si dimbale leen. liggéey nit ki kii ko sax yombul. waaw liggéey nit ki jàpp ko hmm. yombul. comme hmm. képp ku ko yombala rek. Hmm. waxuma amul. amul waxuma amul de waxuma loolu. parce que ñun dañ koy def. waaye si naka. nit ki mun na nopp jabaram. mun na nopp doomam. bu fekkee dafay bëgg a të. waaye ana man ana yow rek ngeen dama lay nopp jàpp lekk sa alal. kon gars yi nañ xoole waaw leneen tamit mi wàllu pari foot. ñu ngi ma siy sollicité surtout si marché kan bi. du ma ñaan si carte. du ma ñaan si pari foot du ma ñaan si ay ñuy def loolu du ma si ñaan. pour mu leer. pour ñu ma si woo. Mm-hmm. képp ku déglu vidéo bi si wàll may wax si wàllu football. Mm-hmm. nekk ma ko xam damay nekk di ñaan si football ñaanuma si carte. boo yoree say soxla bopp nag si wàllu football. Mm-hmm. boo ñëwee ngay zóor wala ngay loo mënta doon comme ni ma si amee ay xarit. di leen si jëflante comme lu ma mën. waaye nag kantaa di ñaan kii mooy gañe kii mooy dóor loolu defuma ko du sama métier. ku am jafe-jafe si wàllu àdduna mhm. boo ñëwee ñu dimbalante si te yàlla tax mhm. ku am yaram bii métti boo ñëwee ñu dimbalante si comme ni ñu mënee mhm. ku tëju boo ñëwee ñu dimbalante si lu nekk rek boo ñëwee parce que ak ñi téere poche ñu loolu moom du lu ñuy wax di sax si émission nit ñi bëgg nañ ko xam nañ ko nañ ñëw jël si ko leneen lu si nekk mooy képp ku ko am yow yaa maanaam sa kaaraange kaw na fépp lu tax mooy téere bi boo ko yenee di ko def sa poche yàlla dina la musal si lépp luy xeetu gàllankoor booy tëdd tamit nga njëganaayoo ko lépp lu la nar a dal si musiba boo tëddee di nga ko gént te bu dee am na ay sarax yàlla dina la ko wan. kon kay lii njëriñ la. waaw njëriñ la am solo jërëjëf pour ñi nga xam ne amuñ ko suñu ngi ci waaj bu metti numéro ñu ngi doon af suufu barre d'écran bi. aja fa may jeexale nag bokk na ci faj ndax su ma nee faj itam li metti si nit ñi wala jafe-jafe yi ak euh, tawat yi ak euh, feebar yi bëri na si ni kaw ci nan nga ëpp loo xam ne yaa ngi ciy faj. wàllu jàngoro tamit dinañ ci dimbalee nit ñi si wàllu ndoxu siti <laughs> siti nee naa la ay pank ay ponk-ponk la dinañ ko jëlal émission spéciale pour yaatal ko mm-hmm. lu mel ni hémorroïde dinañ ci dimbalante ak nit ñi lu mel ni néew kàttan loolu yëpp ay ponk yu yaatu la benn bu nekk dinañ ko jëlal émission spéciale farem fàcc ko pour nit ñi xam ak ku nekk nu mu lay dalee ak bu la dalee naka ngay muccee mm-hmm. ci wàllu boobu ñun nag lii ñuy def yàlla moo ñu ko xéwalee yàlla moo ñu ko may mm-hmm. parce maa ngi wax naa ko di ko waxaat man alaaji Omar Ndaw bu Daaru Salaam moo jur suma waajur moo doomam bu góor moo jur sama waajur bu jigéen Siise laa sant sang laa mhm. së surtout ma ba joxu balaa piir sama maam bu jigéen bala sant mhm. kon man waa Ñooro laa waa Daaru Salaam laa lii nekk su ñun mhm. yàlla moo ko def su ñun zalika fadlullah yutihi man yasha ba jàng jotee jàng nañ ba xam jotee yàlla xamal nañu yàlla wërsëgal nañu ñu xam bu ñu ñaanee dañoo war a ñaan terewul nag am nañ suñu métti bopp yu ñuy def dañoo libre nag si lépp duñu terewu ñoo dox si mbedd mi kenn ëpp ñu xam-xam lu na ñuy di jaay ñëpp lu bëri kenn ëpp ñu ko amuñ chauffeur amuñ secrétaire amuñ dara parce que dañoo libre suñu xel libre suñu jëmb loolu nag képp ku koy dundee maa ngi woo sama mbokk yëpp nañ ci nekk képp ku koy def doo soxla ngay wut ay garde toog fii di wax lu la neex di dugg si lu la neex sa kër kenn mënu laa gis yooyu amul sens lu am sens mooy fexeel ba jaamu yàlla yu ñëw si yow. Mhm. soxla yu ñu am. loo si mën nga def ko si. Mhm. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.